asalaamaaleykum tey nag xamuma li ngeen nar a dégg di leen neex bu ci nar a déranger rek nga boobu nga dof dof salaamaaleykum salaamaaleykum dugg partager te xam ne li ma nar wax nag xëñ na du neex ñu bari mais je m'en je m'en fous damay wax li nekk sama dënn bi nuyu leen yéen ñëpp ku dugg rek partage s'il vous plaît ku dugg partage xam naa nag comme li ma wax rek di les nuyu d'abord yéen ñëpp euh, baal leen ma ma les leen nuyu yéen sen tour ak sen sant di wax ak d'abord d'abord avant tous les lingères yéen mom xawma ay lingeer ngeen tuddé sen bop jigen ñi la wax pas Pastef du début à la fin bayou kenn kenn kenn bu may bàyyi kenn ñaar ak ñett la et chapeau à ces deux trois femmes que que j'ai vu sur le terrain di résister comme ay góor kenn ko xamné billahi euh di résister comme ay góor ñooñu nonu comme ay góor amul lu goor ñi deful tay sur le terrain di résister jigéen ñooñu defuñu ko de 11 heures du matin ba légui ya a même pas une vingtaine de minutes bu ma duggee sama kër sangu defaguma dama changé t-shirt parce que c'était trop sale yeen nga ñi ooyee yeen les lingères d'hier dañ leen waroon porter plainte c'est trop facile ngeen toog seen kër yi bu ñu waxee ngi partagé yéen ngi bind vive les lingères, lu ñuy wax ñu naan les Linguères Ousmane Sonko bés bu ko Yalla mayee inshallah, euh mu génn fa mu nekk bëss bu waxaté les Linguères man Adji ndaw je je lui porte plainte parce que ce nom là il doit l'enlever de ses femmes pastives qui se nom, qui se disent Linguères lan la tayel amul né jigéen yéen bu tabaski jotee ngeen sañse taxaw bu sabar jotee ngénte xew nga ñuy fecc du matin au soir du ngénte da ngeen koy fecc di matin au soir bu Waly sekk ootee ngeen dem ci biir Waly sekk di ko fecci donc force boobu ngeen am pour dem Waly sekk wala ngeen dem ay Youssou Ndour wala wala ngeen am seen xew yooyu foutaise yooyu génn ci biti fecc sañse bu ñu waxee ñu ngi snap loolu rek ngeen xam looloo tax Afrique nek en arrière loolu motax Afrique nekk en arrière parce que vous savez seulement parler mais agir jamais mais Ousmane Sonko mo ñak fayda ay mbokam ñoo ñak fayda bàyyi sen dom mu nan ñan la wara a gérer c'est faux là c'est faux là ah ñoo jaruñu dara Xolal fa mu nekk ay mbokam ñu ngi joy. ay mbokam ndeyam mu nga tok di joy ay ay ay parents yam ay jabaram ay ay ay domam yeen qu'est-ce que vous faites ñen tok sen biir kër yi sen ventilo yi sen climi di len upp buñ ñu waxee ngeen naan yeen ngi bind wooye kii tous Ousmane Sonko yeen Ousmane Sonko bu yaakaaré ci yeen yeen ñepp ci biti ci biir lay fanaan fa lay vous valez moins que rien vous les Linguère nag bàyyiwuma ci kenn qu'est-ce que qu'est-ce que yeen qu'est-ce que vous avez que ñun kon ay jigen comme yeen di ay comme yéen nek ci comme qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez plus que nous pour sortir résister pour votre leader tay buñu meeting ngeen fees fa ñi ngi joy ñi ngi li, mais bu Ousmane ci ci xat-xat ngeen yi ko wax mu nan la tay bu don tay ay ay poste kat mais bu Ousmane peu ci biir ñom ñep ñu nous ñu tëju seen kër yi muy goor ñi ñu ma xamul ay un des patriotes ñoo nekkon ci bëdd bi demb ba légui ba un pour bi ñu dugg ci yi deux h du matin on a résisté bi ñu annoncé l'heure. ba deux h du matin tey 11h du matin ba légui y a même pas une vingtaine de minutes quelques heures ngay vous êtes où tous ces millions de patriotes bu ñu ootee joxe ngeen joxe vous pensez que la vie nous lay nous lay yow daal da ngay toog lépp fekk si la vous ne devez pas vous battre pour avoir quelque chose dans votre vie wala vous devez toujours continuer à tendre la main Vous ñu waxee ñuy xas waa kër Macky Sall c'est des corrompus mais corrompus yooyu ñoo leen gën ndax ñoom am na luñ gëm gëm nañ pour ñu corrompre leen yéen li ngeen gëm ñemewu leen koo défendre ku nekk mu ngi sóor sa bopp ku ne mu ngi sóor sa bopp muy góor di jigéen bu ñu waxee ñu naan les leaders ne sortent pas loolu moom Ousmane moo ñu tooñ pourquoi les leaders ne sortent ne sortent pas les leaders ne font pas bu ñu waxee ñu ñaf seen day taxaw seen conférence de presse yooyu mbel mbel mbel mel ni yow li ngay conférence de presse yow Macky Sall day dégg sa ndey ba bàyyi Ousmane Sonko Macky Sall daf la faale ne Ousmane Sonko la faale yow de daf la faale nga toog naan yaa ngi conférence de presse naan da ngay taxaw mais allez vous battre sortez massivement

ah di xëccante di rayante seen biir mais bu da xoolal bu ca cappaandaw gi taxawee ñu ne non man on doit pas xam nga je dois faire attention parce que xam nga fi ni ma ni ma ni ma fi ma toll fi may gere mais yow foo toll ndayam fan nga toll ndayam fu nit ñi tolluwul ba doo génn ci mbedd bi ah c'est pas parce que yow da nga pour lan yow nit ñi di xeexal sa nday yow bu léegi bu ëllëgee nga nga nga doon nday lépp

on se bat pour notre pays on est là pour le développement de notre pays donc nous, sommes bu ñuy nous sax des choses. mais quoi bu avez des fenn qui la ñuy jël photo des photos, ça chauffe là ça chauffe là tu n'as pas honte de publier ça que ça chauffe Yo, loin def sa cœur, bay bay publier ça chauffe Yo, da nga ma gën dayam man ma mënoon a actuellement là où je vous parle ma fille est à euh, Miami des vacances ndayam vacances sa sama sama doom bu góor mu ngi mu ngi eh, nu mu tuddati ba dëkk pa napp Népal sama doom bu góor mu nga fa mu nga Népal ak ay xaritam di vacances vacances am ma mënoon a dem topp leen ndeyam mais ma ñëw suma pays hmm? bàyyi sama jëkkër foofu moom kenn kundum ak xaj ba ñëpp a ngi dekk seen vacances yi ñu nek fi di résister yéen ngeen tok seen kër yi man adina day neex ba sama dom di ñëw di dëkk ci dëkk ci pays mais pays jaam yi amuy sax ay nationalité sénégalaise ay alhamdoulillah alhamdoulillah parce que dëkk jaam yi ay jaam rek nga fi mun a dëkk ay jaam fi mun a dëkk ay jaam ñooy diggalante gor gor nga ne ci xat-xat ñu toog seen biir kër yi boo bu ñu rombee ne wooy na na na na gën a jax de dañuy looy yow boo tu n'as pas honte de dire patriote romb ay nit ci naaj bu tàng bi 40 degré yow nga taxaw naan non waaye ma ne yéen ànd ba pare continuer dem sa yoon c'est faux là bu waxee ngeen nañ de patriotes di wax bu ñu waxee ngeen ñuy rëy làmmiñ nekk ci tiktok bi nekk ci facebook bi mbel mbel mbel du matin au soir lan ngeen fi def kenn gisu leen ci mbedd bi tous ces millions qui ont voté pour Ousmane ana ngeen yéen yéen ñi ne Sénégal man ma mënoon ñëw ndayu Sénégal top samay chantier ñëw ndayu Sénégal dugg samay ay kër mais ma nek fi di résister pour yéen té aduna du neex bam nakari naqari xonam soxla soxlawuma ko biir Pastef bu ci deful Pastef lu def ci man mënaluma mënaluma mais yéen vous n'avez pas honte comme nakari limay wax nga génn sama ndayu live li lay wax parce que li la dund c'est 24 heures li la dund ah des jeunes xalé ñuy sommes ci ci ci nous mbedd mi di ko ñëfante jël seen bakkan teg ko ci tali bi ñiin ana mag ñi ana magu pasteur yi ana lii bu ñu c'est quoi man je m'étais dit ni Suisse nu ñu def ba devenir ce qui sont aujourd'hui man je vais me battre pour mon pays pour que ça devienne la même chose mais j'avais pas compris qu'il y avait des traîtres chez moi

Ousmane ngi fi waru fa won def ben 24 heures waru ko fa won def bu doon yeen ay gor ngeen ki bàyyi leppam ndax yeen man da kay bàyyi sama lepp ndax yeen yalla na dee xam nga lu j'ai donné ma parole à Ousmane Sonko du mun a mus a gën a gore du ma mus a gën ndax ndayam gënul sama nday sama nday gënul ndayam donc du ma mus a gore du ma mus a gën a def le tout je vais me battre je vais résister pour lui pour sa liberté mais ce sera pas pour le reste du peuple oui, les leaders pas. sauf les gens que j'ai vus dehors ces jeunes de rien du tout Nous avons les leaders, ana linguère ils yéen ils ont yi plainte parce que vous faites la honte de ces lignes. ces linguères sont battus. leur honneur qu'est-ce que vous faites waati wax mu ngi mbenn mbenn focus 2024 fan le focus 2024 balaa focus ndeyam 2024 nga 2024 ak son fay demee 2024 boo génn résister nan ngay focus 2024 ngeen baal ma tey moom saaga ñàkk saaga xoolal na ma Pastef rajo ndeyam ci biti parce que xoolal awma ci lenn waruma ci lenn donc ma xolal ma tok dund sama dund na ma naan dundee di ñëw sama Sénégal di dem somon gële teud wala ma dem sama nday biir kër yi teud wala ma dem sama keur nday Sénégal fële Kaolack xoolal nek à l'aise musuma am problème trente cinq ans may ñëw chaque année xoolal xawma sax luy politique je connaissais personne au Sénégal à part ma meilleure copine jeex Ce c'était pas mon problème ce qui se passait au Sénégal je vivais ma vie comme je l'entends je faisais le tour du monde amatu amoon un problème ma sob ndayam dugg ci lii ndeke yow ay mettez ko sekkal ndeke bu méttee ñëpp ay daw romb nit ñi di xolal di dox comme si rien n'était alors que ngay xol ñooñu vous mais ces gens là

kër comme ku dugg ci film mais ils ont raison de le faire parce que vous vous voulez rien de votre vie dans la vie il faut se battre waaw en Europe ça fait plus de 35 ans que je suis en Europe plus de 35 ans, ans j'ai jamais vu quelqu'un réussir sans se battre Je n'ai j'ai jamais vu après plus de 35 ans en Europe musuma gis kenn ku fa réussir sans se battre di dégg wiw di dégg am baa moo tax boo leen rombee ñu naan kii dafa fuuy kii lii kii lale ma ne maa tey ndee fouy ndax man je me bats toujours pour avoir ce que j'ai personne ne m'a donné rien gratuitement musta tout ce que j'ai dans ma vie je je me suis battu pour l'avoir j'ai jamais tendu la main et je le ferai jamais inshallah allah jamais suma mënul def ci nit ñi nit yu dul ci man j'ai honte que les autres fassent pour quelque chose pour moi j'ai honte que les autres, les autres fassent quelque chose pour moi. Je dois me battre. Mais y a des gens, non naa toog dor. dox na ñoom doomu aadama nday aji ndaw yeeg ay xale yu góor yii quelques-uns génn il nekk di résister yéen ngeen toog seen clim yi ngeen toog seen biir kër yi muy dox. non vous vous trompez nous on se bat pour Ousmane génn de ci njabootam mais pas pour vous fii laa Tok, wax leen Abdou Karim Diop Bi, fi mu jëm ak Sonko sama live boobu dem leen ngeen seet ko jour bi ko nommé le lendemain xam nga le même jour laa génn ne leen xoolal kii fu mu jëm ak Sonko ñax du fa du fa du fa sax parce que la même chose il l'a fait avec moi il y a plus de une vingtaine d'années en arrière une vingtaine d'années en arrière fii la ko def te man budul dara sama yaay ku mu bokkal benn baayu Abdou at ak maamu Abdou Karim ñoo bokk benn baay benn deret ku ko mun a def sa mbokk doo doo doo sëgg ci mbokk jàmbur di ko yërëm moo tax bi muy def conférence de bi mu sëgg di lii rek comme xale sem parce que xam ne li muy wax dara lu ci dëgg rien n'est vrai là-dessus dara lu ci dëgg rien n'est vrai moo tax danga koy bind pour mun ko réciter Parce que tu n'as pas besoin de lire ou de, réciter. Tu le dis. Il y a la tête, il y a le cœur. Le Nous coordonnons. Mais là, il lit. Parce que ce qu'il dit, rien n'est vrai là-dessus. Ousmane, vous sortez la lune. Abdou Karim Diop, bu Ousmane soxla waan la lune tey ñu tegle ay escalier barki Cheikh Ibrahima Niass bi nga gëm ma gëm ko di sa sëriñ di sama sëriñ bu soxla woon tey lu romb loolu ñun dañ koy dem jox ko xoolal du sax wuuje mu dof-dof loo ñun si suñuy at ñu jël ko rempli jox ko ay suñuy at pour mu dund le plus parce que moom dundam am na njëriñ ndax Ousmane ko kenn du ko ger Ousmane ko mu sawar ay mbokkam Ousmane Sonko mosut a jël xoolal ku ku triané ndey mbokkam xoolal ñu dem jar la yow pour nga jël ko dóor ko ci ci angle bi Ousmane Sonko du góor googu Ousmane Sonko góoru yàlla la Abdou Karim Diop. quelqu'un qui a travaillé 15 ans yëkkati loo xam ne dama seet wecc Abdou Karim Diop defal la même chose defal la même chose Abdou Karim Diop defal la même chose yëkkati say loxo ne yow kenn musu mosulaa ger yëkkati say loxo ne mu soo jëlal alalu Sénégal yëkkati say loxo ne da nga seet wecc man de mun naa ko wax ne góoru aji ndaw da ko yëkkati loxoom ci digg ay nawleem Sénégal wër nga këpp mu ne la képp kuy góor képp kuy jaam képp kuy sénégalais képp kuy étranger ñëwal man Seydina Ousmane Sonko mu sell bi bu dee man mus naa laa gërëm wala mus naa soxla ci yow dara wala mus naa lekk lu dul sama salaire wala mus naa jox sama njaboot leneen lu dul sama salaire Ousmane Sonko mus sa toxu Ousmane Sonko musuñ ta ñu nommé ko tey quelque chose ci ab ci ci kër ci ci état bi xoolal mu jóg daw dem changer kër xoolal jël ndeyam ca Ziguinchor ñëw làq ko ci wetam jël ay doomam yóbbu Canada Ousmane Sonko musu koo def Ousmane Sonko doomam a ngi fii école publique ay jàngee parce que xoolal dafa set wecc Abdou Karim Diop kaay ma wax la góoru aji ndaw mooy kan Abdou Karim Diop parce que yow xam nga man xam naa kooku mooy góoru aji ndaw kooku la ñuy wax Seydina Ousmane Sonko mu sell mi Abdou Karim Diop kooku xoolal njabootam ngi fii kër kër cité góor gi xoolal mu jóg yore ñaari jéegam xoolal du takk mukk di fase di ëmbal di teg ci mbedd bi suma sama euh, Seydina Ousmane ko mën na yëkkati ay loxoom waaw waaw ay njabootam mu ngi ko leen uuf jëlul njabootam bii nekk gauche bi nekk droite bii ñu naan moom laam bii ñu naan du moom xoolal jëlul ñu nommé ko mu jël toxu fam nekkoon parce que xam na ne ñëpp xam nañ ko dem nëmbatu ji jël ndeyam yóbbu ci wetam pour bañ ñu laal ko Ousmane Sonko du def boobu Ousmane Sonko dafa yëkkati ay loxoom ne man dama sell man yoreelu ma kenn dara man kenn musuma ger man dama lay laaj Abdou Karim man sa tante Adji ndaw maa lay laaj ndax yow am nga pour yëkkati loxo boobu de wax la même chose que ne maa ngi ut samay njaboot yóbbuma samay njaboot Canada pour rawale leen juruma sama nday yóbbu indi ñeneen ñi ma jël nëbb ñeneen njaboot gi xoolal kenn xamula bu may dox di gerte su gauche à droite wala nga yëkkati sa loxo ne kenn musul a gerte de loolu rek laa lay laaj man aji ndaw maa koy laaj damay laajte rek damay ci rek ku am fit rek defal ni Seydina Ousmane Sonko. kooku gor la kon kooku dina tax ñu résister ci mbedd mi résister ci mbedd mi résister résister baal leen dégg nga résister kooku moo tax ñun ñuy génn di résister te dinañ ko continuer def ba yàlla dañu may xoola suñu taxawaay sunu kastan sunu liberté di ko def incha allah parce que nag ñun ay doomu góor lañ te doomu góor boo ko jiiñee rek mu am lu yëngatu ci moom te moom daf ñoo jiiñ dénk ñu dénk ma boppam kon da xoolal mu nekkee ci naaj bi ma nekk ci naaj bi bu nekkee ci kër gi ma nekk ci kër waaye damay laaj samay mbokk patriote fu ngeen nekk yéen ñi nga tax ñi tax mu bàyyi léppam ñu xale bu jigéen yaa ngi koy yab doomu xaraam yaa ngi koy yab ku ko wartoon a yab ku ko xamuloon a nga koy xam dégg nga yéen ngeen tax mu jaay askanam mais Ousmane man moo tax des fois dama daan toog ma ne Ousmane mais na kii rek moo gën a dëgër fit ci lu yàlla bind. yow xoolal peuple yëpp nga ñëw choisir Sénégal ne leen jiw nga jiite ma ne xanaa loolu dof xanaa loolu dof rek moo tax ma ne est-ce que Ousmane il est normal. de demander de gérer cette population cette population de jam cette population nga xam ne qui est naaj bi ñoom ñu seen c'est-à-dire expliquer wala ñuy ça chauffe la gauche à droite c'est rek que wax leneen Ousmane nañ ci biir ay gor ne du gisuma ci sax je ne mais vous

Je suis milliardaire en France CFA, je suis millionnaire en francs suisse. Oui, je suis fier parce que je me suis battu. tooguma di xaar muy dox tooguma muy xaar muy dox bi jóg jotee dama jóg bi samay nawle yi di jóg dama jóg ñi ma ko séqal dama jóg ànd ak ñoom dama jóg ak muy mais yéen ana anamu anamu anamu kenn man je vois personne je vois personne mais bu dee tey luñ ne ñii ñu ngi sañsee di fecci boo waxee ñeneen kii ma ne leen ba ba nit ñi di jàng fecc maa ngi jàng alal ba nit ñi di jàng fecc maa ngi jàng ut ndeyam alal moo tax mënuma fecc ba nit ñi di doxantu fii di laataatu loobe fecc si sabar yi man maa nga biir ndeyu Europe gisuma ndey gisuma bàyyi di ñafe man loolu laa xam te gor gu ma ko mus a seqal ne nekk naa yow ci ngor looloo tax tey ma nekk ci mbedd bi di résister ndax Seydina Ousmane ko mu sell bi man du ma wor du ma meluma ni lingeer yenn yi à part yi ma gis ndeysaan kenn ki taaj yi dafa rëy ndaw si mënu sa dox mais xoolal onze heures ba ci bi ñuy dugg léegi fii ça doit faire une trentaine de minutes trente cinq minutes boobu ba léegi ndaw si xoolal mu ngi daw mu ngi dama ko mujj gi dama don taxaw parce que dama tuuti naa ma dama don taxaw xoolal jappale ko ñu dem ba ma ne ko soxna ci mu ne muku ku demb ki tamit noonu ay c'est des femmes comme vous c'est des femmes comme vous ëppalewul leen ëppalewul len ay jigen lañ doon ay mama doon ay jeeg comme yeen doon ay xalé yu jigen comme yeen kenen ki demb elle doit avoir une vingtaine vingt cinq ans kon bu ma gëm ay non ñi ay jigéen lañ nañ toog ci kër ga lan mooy loolu lan mooy seen seen seen mentalité de merde jigéen dafa war a toog ci kër gi jigéen dafa war a taxaw toog góor bi dem liggéeyal ko jox ko moo tax chaque jour góor indi la sa ndey wujj ci kër gi góor gi la def lu la naqadi ci kër gi parce que boo mënalul sa bopp en tant que jigéen boo respecté wul am sa orgueil de jigéen dem liggéey wala nga dem ñafe ji ah di nga taxaw di dégglu la naqadi ci góor wala ngay taxaw góor gu la takk pour nga mun a nekk parce que jàngu leen dem ñafe ci mbedd bi mais naga ma sañse rafet fecci jël affaire u lawbe yooyu yëngal seen i taar xam nga ne waaw loolu la jigéen war a def noo jigéen warut ñu tëj ndeyu leaderam ci biir kaso bu tàng bi quarante degré ñu métti xoolal jigéen bi toog moom warut a génn kooku mu ne leader la kooku mu ne kooku ko war a defaral avenir am ab ay doomam moom du génn pour tëpp pour loolu pour kooku génn foofu non day xaar non non nañ xaar lundi peut-être lundi dinañ wax mais yéen bu Ousmane yaakaaree ci moom Ousmane fële lay dee wala nga xam ne xoolal président Sénégal da koy dégg rek mu dee ci yéen la yaakaar ci bu dee ci yéen la yaakaar mais nag billaay dina xam ne xanaa ma dee ma génn ñu tiiree ma barki cheikh al islam xoolal ñu jël sama bakkan bii mais Ousmane du ne ci biti man may ne ci biir clim di ma tàng taal wala ventilateur ana liveur yi yi dëkk fii Sénégal ana ngeen ngeen ne ci tiktok bi ni mbel mbel yi ku ñu wax muy wax ci Ousmane génn leen te yéen a ngi nii ñu ci bëri Ousmane di dundal seen ndey ne ci tiktok bi ne ci youtube bi Ousmane bi dundal seen ndey waroon ngeen nag fayee ko mu mu am naqar ngeen génn ci biti xeexal ko résister pour moom buñ waxee dëgg kii ma ci digg kii bi ay boori il faisait lan foog naa ay treize heures naaj bi tàng ndeysaan ñu jël mbuusu ndox yi di ko xëppanii suñu kaw am benn booy ne xam xama tunkaram ngi live ma ne ko booy fayal ndayu téléphone boobu ñu dem

mais yow bu Ousmane Sonko sa live bobu at li ngay jël di dénoncer bu doon lool la rek Ousmane Sonko du ko mais soyons un peu plus intelligent soyons un peu plus intelligent c'est pas maintenant de faire des milliers de live chaque instant de génn mbel-mbel yi non yow waxal ci ci li nga wara xam nga nit ñi fi ñu ci biti résister tu as pas besoin de le dire comme ça wala nga tok di live koku tok ci di la déglu.

kuy live xaaral ba x time nga live xaaral ba x time bàyyi leen nit ñi ñu génn bu dee ñooñu ñi lañuy ñuy seetaan ñoom bu doon tey yéen mais mais attends raisonnez-vous parce que yow ki lay seetaan bu doon tey moom Sonko jaral na ko yow booy live zéro personne nga fay gis kon ñoom ñii fa nekk Sénégal ñëpp ñu ci biti mais la majeure partie ils vivent ici au Sénégal donc nous nous, nous, nous nous, nous, nous, tu as cette majorité de personnes nous, au Sénégal mais tu te dis que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous nous, pas autre chose je vous dis nous, nous, nous, nous, nous, ma fatti nday suma kii bi ngeen dàq ma seen parti ndax ku saaga bokkoo mais man aji ndaw dinaa saaga see jaam maay saaga seen jaam kenn suma dégg ma saaga mais nag lu ëpp tuuru parce que man góor-góor laa ci xam jaam-jaam laa ci xam umu vert umu bleu umu rouge umu noir umu noir umu blanc man loolu laa xam je connais pas les ces bu ma sëq nit ki day métti ma nekk ci moom ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba yalla may ko jamm après ku lu way xam dem man lool la xam lool la xam mais mënuma gëm leneen lu lool ñi fi tok naan way xolal yene leen pour ñu jappalé nit ñi mais yow attends yow yaangi ubi ubbi chaîne ay chaîne youtube di gagné loolu ak ndax sayidina Ousmane Sonko yow waroon nga rus taxaw nan benn patriote participer len pour ma jox

qui réfléchit yéen waru leen wax mais attends ce monsieur là il est là sur Facebook euh, YouTube TikTok plateforme bu nekk de gagner des milliers et des centaines de mille grâce à Ousmane Sonko Ousmane Sonko nekk ci xat-xat monsieur Bob, wala mu jël ci li a gagné ne ah kii de bu ma ko gagné yàlla jëmm ji la xoolal lii maa ko def mais rus naa taxaw naa nit jox ma pour ma jox ni, mais nga génne yow joxe.

Il n'y a que des beaux parleurs. Mais pourquoi l'Afrique n'avance pas Parce que l'OLO, ça ne sert à rien. Nous le juge wala Macky Sall wala quiconque Ousmane du lolo. théorie la seule chose que mun Ousmane fu mu te ces millions de personnes des patriotes des vrais patriotes Mais Ousmane mais vous êtes des traîtres comme kii dina fa nelawaat tey war fa nelawaat beneen jour parce que vous êtes des traîtres lim leen jaay fayoo leen leen ko fay kenn fayu ko ko ci mais moo ñàkk fayda moom di ko séqal jaam yu mel ni des sénégalais vivant ici qui foutent rien lu dul di mbel mbeli rek di mbel mbeli bu ñu focus focus lan la focus ndayam 2024 sax du ñu bokk ndayam muñ ko naree continuer nii jeex na comme netti nag xoolal c'est votre problème lii man la maa wax et bonne soirée 看。